dañoo ñëwoon fi nga xamante ni mooy euh, kër Soxna Aïda Saliou euh, comme ni match bi amee Sénégal ak Hollande ñu toog moom seetaan donc moom première mi-temps ba deuxième mi-temps euh, yàlla def bi gën mu nekk defet bi nga xamante ni xam naa ni peuple Sénégal bi yëpp touché na leen du luñ sori ci wax ji avant ñu koy laaj defet bi dañ koy laaj moment comme ñëw nañ ñu seetaan donc match bi ndax la gise woon match bi première mi-temps bi deuxième mi-temps alhamdulilahi rabil alamina ñaana sama buntu ci Serigne Touba Seexul Xadim Serigne Mountakha Bassir fu kilifa diine kilifa aada nekk soxna yi daang lay ziar sénégalais yi comme sénégalaise dund ko ak dundu fierté ak sénégalais yi préparé ko préparé bu mucc ayib comme sénégalais mais aussi am naa lu ma métti quoi su dee nëbbuma sama bopp parce que dama nekk sénégalais boo xam ne sama réaction ci Sénégal dafa dépassé wax ñuy fowee samay kaddu tey ku seetaan match bi rek xam ne boo amee jàngat walla wala soxoroo ci ci ci ci ci am ci am ci am ambition ci waxu nit wala gëm say kàddu di nga xam sama kàddu yi am na lu mu def. non daa mel da ngaa mer. non dama mer nag sincèrement parler dama mer dama énervé dama dama dama dama am naqar boo xam ne. man xam naa ne yàlla ànd naa man ànd goo xam ne mm-hmm. waroon na maa mën a taxawu sénégalais jàppale ma njagam yàlla mi nga mm-hmm. xam ne moo ma sàkk mm-hmm. moo ma dimbali di ma wan ba wan ma sunu yoon di ma wan wan yoon wi tout le temps wan ma yoonu coupe d'Afrique ma nekk ci li ma ci nekkee ba kenn waxagul ci match bi laa génn improt wax fi ne sarax bi gis naa ko ndax li ma gis kenn du ko gis parce que man maay ki ko war a gis gis naa ko mooy ndel ma ne ci président de la république laa ko tàmbalee ba ci Aliou Cissé ba ci joueurs yi ba ci supporters yi na ñëpp ndelu waa ndel fan lay nekk ndel fan lay nekk ci nit bii ñu rate lan la ndel bopp bi dugal lum duggee bopp la ñu dugalee mbëkk la ñu dugalee kon réaction bi lan la ndel boobu ñuy xeeb du ndel pour gagner ay match mais ndel la ak pour coupe dama leen ni woon bu nu dugal bu ñu watoo ndel yi coupe du monde mi ngi ci loxo peuple sénégalais yi ak ñoom staff bi coupe baañ ci seen loxo. parce que moom moment bu match bi jeexee gis nañ SCT yi ku nekk du reprendre bi nga xamante ni moom mooy ndel bi ah, mel ni Sénégal ah, boo waxee dara des fois dañ koy dañ koy saakal pexe mais dafa mel ni Sénégal yaa ngi insisté ah, ci ndel bi. waaw parce que boo dee xool sénégalais yi. mille sénégalais cinq cent personne yëpp watu nañ mais ñi war a jiite wat bi ñoo watuwut lan mooy kawar luy saxaat lan mooy kawar lan la fi nit war a mën a am muy sax kawar nga ne yow doo ko wat mais bugguma Sénégal ñoom ñu gañe leen parce que sama réew la samay doom ñooy football su ma sañoon ñooy indi ndam li parce que teewul ne wax naa te defunu ko te teewul li sénégalais di def citoyen di ko def def naa ko te laajuma état ma ministre laaju laajuma n'importe kii que cent franc lépp man maa ko def ak sama engagement bopp ku ma war a solal mayo solal naa la mayo préparé naa ay añu mucc ayib préparé naa sama déguisement comme sénégalais comme maman des lions préparé comme comme citoyen comme patriote parce que man loolu laa gëm que ne sa réew man waxuma nañ ma yóbbu Qatar ah néew ma na ma ministre bi jox xaalis ah néew ma président jox ma xaalis ah invité wu ma kenn que ne damay recevoir benn sarak wala benn dama ne defal leen man deli li ci des man dinaa def ak samay propre moyen ñu jël coupe parce que coupe d'Afrique dama ko jaayante woon jaayante bu mucc ayib mais nag man duma ma doon sénégalais bi nga xam ne sama équipe damay taxaw di leen dëkku ci ne sama wax ji boo leen ko deful da ngeen a yàqu leen malgré que defuñu mais maa ngi leen di ñaanal ay ndam ci seen kanam. mais moi comme ni nga ko waxee nga dig leen dell comme ni nga ko waxee gisoo ko maanaam bariwul ak fi nga waxoon fa la war a amul nga gis Sénégal football am defet loola lay def ci yow. Ah, na ma mais mënu ma ci dara tamit parce que man man citoyen laa comme ñëpp mhm. dama am droit rek yàlla may ma li ma may ci réew mi su ma waxee mairie yi dañ mairie yi dañ leen di changer ñu changer mairie yi. Mhm. dem leen vaar nit ki am na loo xam ne boo ko defee ci réewam du benn at du ñaari at du ñetti at du ñeenti at du juróomi at pendant dix ans ak sénégalais yi te samay wax moo fay ne te bara àddunay tukki samay wax incha allahu rabbi ni ma yàlla def ak xol bi ma am ak yéene bi ma am Sénégal ak objet bi ma am ak li ma yàlla dimbale ba ma amee huit ans la mesure que match man match su ma koy seetaan dama yaakaar ne man maay football ci biir stade bi parce que nattu boobu la ma yàlla def dama ko judduwaale mat xam-xam bi ak ni ma toll lu ma suñ borom balancé la ci bi may am huit ans laa tàmbalee seet. ba toll ci nii ma ci toll mais maa ngi ñaan match yi ci seen kanam na ci yàlla def ndam parce que tey défaite bi bu fekkee ne ku ko def perte man ki ñi perte laa bokk parce que dama ci financé te malgré maa ngi toog di seetaan mais xam naa ne duma leen ne da ngeen ndax nee sama làmmiñ bi du wax mukk defetu mbër waaye du wax defetu match parce que sama njaboot ñoo koy def te man du ma disponibilité lañ koy wax du ma ko def benn sénégalais ci àdduna du tas yaakaaru kenn mais na njunju doy na borom xel wadi pourquoi maman bu Sénégal daan football Sénégal pourquoi bu daan da ngaa joxe sport dem gis na am na ay ci yi nga xamante ni ñoo jëleen la mais nangoo ba léegi watuwuñ quoi samay samay wax wax naa ko ci ndel laa laaj ndel mm-hmm. invité nañ ma télé bu Boursu mm-hmm. euh, ma ne leen ndel ñu invité waat ma yeneen site ma ne leen ndel parce que ndel bi dafa am lu ma ci li ma ci li ma ci wan du naan saay daal dama insister ci ndel ndel fa la force ndel forcé ndel ndel ndel maman looy tàggatoo ku mbokk internet Feeling Dakar ak Click Dakar TV yi lay seetaan joueurs yal na yàlla sàmm football nañ lu rëy newoon naa leen Sadio Mané manqué na fi manqua Sadio Mané neexuta remplacement ci équipe Sadio Mané c'est meilleur ma Sadio Mané c'est professionnel Sadio Mané ku miin balu Sénégal la xam na ni muy doxee ak tubaab yi xam na ni muy doxee ak naar yi xam na ni muy doxee ak africain yi réew moo gis tey am paix paix du ñàkk te Sadio mooy paix mais ñi ngi ñaan yàlla na wér dellu siwaat suñu match Sénégal Sadio Mané nag lii mooy ngëneelam bu ko lii dalut woon li ko nar a dal du ñu gënal ñun sénégalais yi kon ñu ngi koy massawu di ñaanal waa Casamance di ñaanal sénégalais yëpp tey euh, ñu ngi dund défaite bi mais dañ koy dund ko ne Sadio maane mi fi ñàkk moo tax mais xale yi football nañ jàmbaar lañ jaraaboor jërë ngeen jëf gën leen a góorgóorlu Aliou Cissé ñu ngi la naan fristation gis nañ liggéey bi rafet na mais ndelu leen dimbali leen ma ngeen ndelu jàppale leen ma ngeen ndelu ku nangu say wax boo ko dégloo sa kër ñu déglu la kon booy wax ak say mbokk nan la déglu maa ngi leen koy waxaat coupe bi mu ngi ci seen loxo ndel rek a ko fi indi keneen ku am gàllaaj bu dul ndel ci réew mi defal boo ko defee ma xam ne yow yaa fi ne hmm? waaw ku mën ku am leneen lu remplacer ndel defal dama ne ku am leneen lu remplacer ndel yi ma wax na nga def ñun ñoo koy seetaanandoo man bu match ñëwee lu ma am dinaa ko ci def barke Serigne Saliou bu ñu ne sénégalais mooy football lu ma am dinaa ko génne ci lu baax waaye lu ma am ci lu bon dinaa ko denc mais ndam li li ma koy wan man ak fi ma koy jëli jee gone du fa dem mag muy fa du fa dem xale buy xool di ngalaju du fa dem man rek maa mën a taxaw Sénégal Coupe d'Afrique dem leen vaar ak samay sarax ak lu mucc ayib lu nu def dinaa ko def ku ne gerte ma def gerte ku ne suukar ma def suukar ku ne fruit ma def fruit ndax citoyen laa comme ñëpp mais li ma wax man tamit ngala nañ koy def ni ma leen koy waxee kon lii mën naa ñàkk waaye sant yàlla li gën rasta kenn ko ku sa bopp tojoon léegi nga wattu ñu taf ko kawar judduwaale wuñu ko te amaana bu ñuy dee du ñu yóbbaale ay rasta kon boog rasta dañoo judd fekk ko fi ku judd wat nan la te mbëkk moo dugal bii bi te mën naa wax ne même match yi ci kanam bu nu watuwul lépp luy dugal bii mbëkk lay doon incha allah. di leen nuyu di waaw. alors ah, comme ni la ko waxee gis nga Sénégal football moo ko yàlla def ñu gën ñu 2-0 ndax nga gisee li nga xamante ne moom mooy defet bi ak ban jàngat sant yàlla rek ak gën a rafetalaat toogaay yi quoi tamit gars yi sëriñ si yenn affaire yi ñuy digal ni ñu koy xeeb tamit nañ si bàyyi xel baax parce que kenn jarul xeeb quoi si mel tam soxna Ayda wax na gars yi fi watu leen del ñu ñaakal ko fayda mais bu ñu xam te tamit première bii bi li ko dugal lan la du bopp kon respecté leen gars tamit bu baax tamit quoi ku tamit ay karambaay tamit lu mu gën a gaaw tamit nañ ko dagal bi mu dem tamit am na lu leen yàlla may daal waaw nañ leen bàyyi xel bu baax ñoom tamit waaw ku si. lan nga yaakaar ni ah, hmm? mais tamit deuxième mi-temps bi tamit changement bi bi saawaay def tamit Aliou Cissé baax na baaxul daal mais nag waroon nañ gën a xoolaat daal nañ gën a bu baax daal moom waaw. mooy sànq ñu laaj mais yaa ngi gën a insisté ci ndeli dafa mel ni ndel yi nga. non ndel dafa am importance. dafa am importance ndax nit ki boo xeeb quoi ndax fii la commencé woon ndax ñun ñoo dëkk fii jamono yi léegi euh, Coupe d'Afrique bi fii la nekkoon di génn di génn ay ndoxam a ay euh, soowam gars yi ko mais tamit gisa na tamit ndam rek la indil tamit. nañu respecté rek lu ñu wax yàlla baax na daal. nga ñaax équipe. dinañ ñaax ne leen ñu gën a rafetaat ñu gën a defarwaat rek. waaw incha allah lépp dina baax bu soobee yàlla. waaw jaajëf jaajëf.